salaamaaleykum nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude képp koo xam ne nii abonné goo ci chaîne bi duñ def dudul wax la nga abonné activer cloche bi bu ko defee benn suñuy vidéo dootu rawati mais surtout ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax baax xibaaru mercato bi nag dañ ko jiitaleek le jeune joueur bi ñu naan Mudryk doon ukrainien actuellement nag club anglais bi ñu naan Arsenal jamono ji daal teg na pressing pour war mën a jënd joo gone googee indi ko ci équipe am vraiment mën naa ni euh, jamono ji daal ci mercato bi moom bokk na ci ñi ci gën a fës ak keneen ki ci topp ñu naan ko kan euh, Gakpo nekk benn joueur hollandais bi nga xam ne mën naa ni euh, takkoon numéro 8 ci coupe du monde bi sonaloon équipe yu bëri ba ci Sénégal sax mën naa ni sunu première bi ñu encaissé contre Hollande moom moo ko dugal le jeune el néerlandais actuellement nag gis nañ ne Liverpool mën naa ni ak booy bi tombé nañ accord de même que club bi nga xam ne fa la Euh, Hollande nekk fële ca Pays-Bas actuellement tombé nañ accord ci prix bu toll ko trente cinq ba euh, quarante millions d'euros mu doon jeune joueur boo xam ne nii Manchester United moom moo ko bëggoon a jënd waaye finalement Liverpool doublé na Manchester United tombé nañ accord ñu ngi xaar visite médicale euh, ci semaine bi lanu koy yaakaar bu baax a baax ñu ngi xaar na la nar a mujjee transport bébé war a jóge fële ci Hollande ñëw rejoindre Liverpool bu Mohamed Salah club anglais bi nga xam ne nekkaat ci seen meilleur niveau le jeune portugais ñu naan ko João Félix moom mi nga xam ne jamono ji mën naa ni euh, mu ngi ca Atlético Madrid moom nag actuellement euh, Chelsea moom moo ko bëgg a jënd ngir indi ko ci équipe boobam boobee euh, gérer côté offensif bi nga xam ne jamono ji Chelsea da cee tële mën naa ni ci deux années yii yëpp mu doon loo xam ne nii daal mën naa ni lu metti la ci ñoom tey bëgg nañ ko soigner ci noonu dañuy jaar noonu dem championship wax ci kan Iliman Ndiaye sunu sal sénégalais moom mi nga xam ne jamono ji mu ngi def lu am solo fële ca euh, championnat Angleterre deuxième division actuellement nag am na neuf buts ak ci tey seen match boobee euh, gis ne championship Iliman Ndiaye euh, dafa def beneen passe décisive mu doon cinquième passe décisive ci saison bi mën naa ni doon le joueur le plus décisif de la deuxième division anglaise mu doon loo xam ne ni sac la tiit fierté la pour le Sénégal Iliman Ndiaye loolee nga xam ne jot na ko def gàcce ngalaama à fële moom mi nga xam ne clubam bii di Everton ah, tey da doon jàmmaarloog match Premier League Boxing Day moo ko Wolverhampton Idrissa Gana Gueye il était impressionnant Idrissa Gana Gueye il était exceptionnel ci marquage yi duel gagné yi ah, ci passe réussie yi macha allah il était exceptionnel waaye li ñuul ci sox bi mooy que seen club bii di Everton vël da leen a ah, par la marque de deux buts à un ils ont tout fait de même que Gana Gueye suñu international sénégalais waaye li malheureusement dañu leen a mujjee dóor deux buts à mu doon match boo xam ne ni métti woon na lool championnat Angleterre comme d'habitude recommencé waat na en force intensité football rythme et tout y avait tout macha allah gàcce ngalama euh, leen xaar gars yi ci commentaire yi nan ngeen ko gisee euh, ngeen continuer di abonné ci chaîne bi activer cloche bi ci nga xam ne defaguñ ko mais surtout euh, ngeen di liker di commenter ko partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ba beneen yoon ci yeneen i xibaar jàmm ci yéen